di am ay dëkk yoo xam ne dañ ciy waxtaanee seen émission allo diaspora d'or man Seydina Omar ma leen koy xal saa su ne àjjuma mu jot ci euh, waxtu wi euh, ñuy waxtaan nag euh, ci li nga xam ne jëm na ci diaspora sénégalaise maanaam bitim réew sénégalais dafa nekk nit koo xam ne dafa tàmm wala mu bëgg en tout cas di tukki di génn fii di dem seeti leneen loolu nag nekk li nga xam ne dañuy ñëw waxtaan si jël benn dëkk xool dëkk boobu noonu la fa nekk sénégalais yi lañ fay wuti lañ fay yaakaar dinañ ko am wala duñ ko am nañ fay dundee seen seen intégration ak lepp li nga xamné en tout cas dal euh, soxal na len ñom ñi nekk fi bëgg dem wala ñom ñi nekk fofu yit bëgg wax ñu seen problème ak lool yëpp mu nekk lo xamné dinañ ci waxtaan turki nak nekk dëkk bo xamné ah, bu ñu xolé Sénégalais yi bëgg nañ ko bëgg nañ ko nak lan ci marchandise bëgg nañ lan dëkk bo xamné la dëkk bu mak la bëgg ko bëgg nañ ko nak lan dëkk bo xamné la ah nga fa jàng lu bëré bëri waye it am ay inconvénients amna ay lëj-lëj ak ay jaxaso yo xamné fay am loolu mo waral tay ñu am sunu gan sunu xarit boo xam ne dëkk boobu di Turquie nekk na fa ñëw na Sénégal dem na ñëw na li ñu faral di wax ne dëkk eh, boo fa demee da nga fay jàngee xam-xam wala nga jëlee fa alal eh, dinañ xam nag sunu sunu invité bi tey ndax jëlee na fa alal wala jëlee na fa xam-xam loolu nekk loo xam ne dinañ ko sotti ba képp koo xam ne internet nga wala nga nekk auditeur bu 99 point 4 fii ci King FM eh, nga mun siy jël ñu am mbégte loolu tey di dalal sunu xarit Mimi ñi ngi lay ziar. maa ngi lay ziar Seydina Omar. naka yi tey. ñoo ngi nii alhamdulilah. ñi ngi am mbégte ci wuy si bi ñu wuy si. may man tamit am mbégte ci invité bi nga ma invité fekk si la. ci seen émission allo diaspora bi nga xam ne mi ngi am tey nag ñuy wax benn dëkk boo xam ne sénégalais yi bëgg nañ ko. muy Turquie. waaw mhm. ah, mu nekk dëkk boo xam ne bu ñu ko waxee ah yow de miin nga ko. dañuy wax ne ah, néeg woo xam ne la tey jii ah, kuy soog a yegg si daal boo ko dalalul wax ko fu muy toog amaan na mu gërëm. amaana mu gëlam dëgg la. loolu tax nag tey jii ñu ñëw woon pour invité la waxtaan si ak sénégalais yi pour xool. Mm. Euh, turki boobu noonu li nga xam ne moom moo fa nekk maanaam xuus dugg ci mbóoti dugg ci biir bu baax a baax. Mm. turki boobu noonu nga xam ne euh, dem nga fa. Mm-hmm. lan moo la fa yóbbu. ah turki boobu nga xam ne dem naa fa li ma fa yóbbu. avant ma ci ñëw damay nuyu auditeurs yeeg auditrice yi nga xam ñom ñoy ñooy déglu King FM 99.4 radio bi nga xam ne nee naa la mooy rajo bi nga xam mom la ñëpp bàyyi xel. mom la ñëpp safoo macha allah. waa tukki nag moom boo ci waxé day doon lo xam dama ci sawar dama ci sawaru xuus di ci wax ndax turki mën naa ni euh, Sénégal gi fi la juddoo fi la yaro mais danaka lama xam turki laa ko xamee ndax moy sama lépp parce que dem na fa xam-xam la wuti won parce que ñëpp gis nañ ne kuy jógee fii Sénégal di dem ci dëkk sa yaay lam lay njëkk a mooy boo demee nga góorgóorlu man nag damaa demoon Seydina Omar nag pour góorgóorlu fa liggéey daal ma fa yóbbuwoon mhm. waaw. est-ce que dem tey sénégalais bi nga xam ne mi ngi fi nekk xelam xelam nekk fa euh, yomb na ci wàllu visa wala yan type de visa la mun a am en pour dem foofu nga xam ne moom mooy Turquie. Mm, yomb na yombul loolu mi ngi dépendre euh, yow mi nga xam ne da nga bëgg a dem pour jëndi bagage yow mi nga xam ne contrat moo la moo la yëkkati. parce que am na ñoo xam contrat footballeur mo leen fa yobbu am na ñoo contrat festival yi ñu organiser fofu ñom Turquie am ñoo aussi visa bi ñi soxla moy ñom ñi dem di jëndi bagage am na ñoo xam aussi tamit dañuy wax ne dañuy dem jëndi bagage mais dañuy am visa bi pour dem pour toog Wa, ñooñu am ñoo xam loolu lañ fa yobbu <laughs> wa mu melni kon ñetti tibu visa yo mo sax visa contrat visa business. visa business ak euh, visa lu melni ni festival. wàllu kon ñoo xam ci dañ liggéey donc mu mm. melni yow ci ñetti façon visa yo dal am na benn boo xam ne moom nga si demoon. ba nga yeggee fa nga xam ne moom mooy Turquie. Mhm. nga jóge Sénégal gis li fi xew. Mhm. sa sa premier impression bi nga xam ne am nga ko bi nga wàccee ci Turquie nan nga gisee dëkk bi. non man bi ma wàccee. ba déjà <laughs> li ma njëkk def ay ree mooy seen làkk bi mhm. parce que man déjà damaa yegg si rek daal ne waa man mii lii nan lay déggee làkk bi lii dina doy waar de waaye comme xam damaa nekk femme d'affaires rek sopp déjà bi ma yegsee ba sama xarit bi ndeysaan maa ngi koy nuyu de passage Aminta Gaye jël si ma aéroport ma ñëw ne ko ah, Aminta seen dëkk macha allah waaye Aminta ñi la la ñuy làkk mu ne ma mbete man maa dégg yow di nga dégg ma ne ko ah, kon ayca ma ñëw ak sama sobaay ba ma ñëwee li ma njëkk a jàng mooy xaalis bi ndax damaa bëgg dërëm waaw liggéey rek parce que bi ñu ma ne yow xaalis bi ngay jàng Aminta ne ma loo koy doy ma ne ko dama ñëw pour jaay ndax dégg naa jaay dox na fi Aminta ne ma waaw jaay bi moom dox na fi <laughs> waaye yow doo jaay da liggéey <laughs> waaw loolu laa def. Mhm. donc bi ngay soog a yegg si li nga njëkk a def. mooy mhm. jàng xaalis bi euh, pour jaay intégration bi sénégalais boo xam ne mi ngi soog a ñëw foofu noonu. Mhm. donc nga gis dëkk bi ni muy demee dugg génn rëbb ak yooyu. Euh, yow sa jëm bopp nga ñëw fa amaan na am na leneen lu la fa yóbboon lu dul ñëw pour immigré wala pour pour pour njaay. lan moo changé sa xel ci la la fa yóbboon ak ca la nga def après. non dama ñëw la ma fa yóbboon mën naa ne festival man moo ma fa yóbboon contrat moo ma fa yóbboon parce que avant kat laa woon. nekkoon ci Pa Moussa Sonko. Euh, jàngal ma waa ma koy nuyu moom tamit. jàngal ma li ma mën ba yàlla def ma am contrat bi ma amee contrat ci laa demee contra Istanbul ma ak sama yeneen copine ci la ñu demee nag bi ma demee ba foofu festival bi ñu ko defee ba mu jeex laa ne ko sama xarit mu naa ma ne koy da di dem wala da di toog <laughs> ñu ne ma nañu xool rek ma leen man daal li ma gis daal mooy nañ toog parce que seet naa ba seet Sénégal gis nañ la fa nekk ñun jànguñu école toog fii liggéey moo ñu arrangé ci laa toogee woo sama yaay ko damay toog man daal damay toog ñibbi seetuma dafa nekkoon décision bu diis li nga bàyyi woon fii li nga jotoon lijjanti fii nii euh, li nga fi amoon yëpp nga mm. jël ko teg ko nele pour dem immigré est-ce que loolu nekkoon na lu facile décision boobu noonu non décision boobu yombul woon mm-hmm. parce que man ku xam mi mi rek xam ko man ñëpp xam nañ ni ma mel sama yaay damaa bëgg sama yaay ba aw ma ci sago mm-hmm. waaw parce que bi ma demee dama doon naan ah man daal bu ma nee festival bu jeexee damay ñibbisi waaye ma ñëw aminte na ma tee ngaa toog liggéey ma ne ko noonu lool sax laay def damay toog liggéey ma woo sama yaay sama yaay ñaanal ma dénk ma ne ma incha allah yow foo nekk jàmm nga fay am waaw. mu mel ni kon festival moo la fa yóbbuwoon woon. liggéey moo la fa yóbbu woon. liggéey ba jeex nga farfalang. waaw ma far farfalang. sa lang boobu noonu euh, yan bunt la la la la ibbil ba ngay soog a ba ngay soog a yegg si maanaam euh, nga dem Turquie. am barrage linguistique déggoo làkk bi mm-hmm. xamuloo xaalis bi mm-hmm. xamuloo loo fay liggéey mm-hmm. xamuloo loo fay def sa premier jour yi nan nga fa dundee non sama premier jour yi li tax euh, méttiwul ci man parce que damaa dem fekk fa samay xarit ñu jiitu ma fa amaana su ma leen fa fekk woon lay gën a metti uh-huh. mais damaa dem fekk leen fa Aminta Agnès Mami Ndiaye ma fekk leen fa ak sama beneen copine bi si taa ñu dalal ñu xam booy soog a ñëw ñëpp xam nañ ne liggéey yombul Euh, biñ ñëwee toog laa commencé am ndeysaan suñu njaatige bi ki ñu dalal tamit suñu grand bi Saw ak Omar ak kii moor ñu ne ñu léegi lan ngeen bëgg a liggéey ma ne ko man daal dégg naa jaayi montre yi fii dox na man daal naa compte jàngal leen ma compter xaalis bi mais bi ma waxee lu ñëpp dañ doon ree après ci bi daal ne bi laa yéen a ngi mais kii li muy def xam na ko man leen man liggéey rek a ma tax a jóg fekk nag bi may dem sedd laa dem ñu ne ma mën nga jàng xaalis bi mais mënagoo liggéey ci jaay montre parce que dafa sedd man leen kon su ma liggéey loola laay liggéey ñu ne ma fabrique yi ok yan euh, yan façon liggéey ñoo fa am maanaam sénégalais bi nga xam ne tey jii mhm. euh, Lamine wala Maysa euh, bëgg a dem foofu nga xam ne moom mooy moom mooy Turquie yan liggéey ñoo fa am ci góor ak ci jigéen liggéey yi fa am bari na bariwul mhm. muy ci ku góor ki muy ku jigéen ki parce que boo seetloo góor ak jigéen daanaka boo xasee ba ba ba tukki rek liggéey bi benn la ok ndax li ngay bañ fii boo tukkee da nga koy def moo xam nag liggéey bu mu mënti doon na doon liggéey bu baax loo xam dañ ciy jëlee xaalis bu leew bi ma demee gis naa fa jaay montre jaay montre dox na fa aussi tamit nga dem ci marché luuma yi comme bazar lañ koy wax foofu ci marché luuma yi nga xëcc sa valise dem teg diw ko ay montre ba mu bari tamit nga jaay loolu tamit dox na fa am na aussi tamit kii yi nu mu tudd cargo yi cargo yi mooy yi nga xam ni boo jëndee sa bagage bëgg ñu fretal la ko yooyu yëpp am na fa waaw fabrique yi tamit bari na fa am na fabrique gu comme genre usine la am na usine yoo xam ne ay yére la ñuy defar am na yoo xam ne ay dàll ñii ay pochette sans dépend yow ci fabrique bi nga bëgg. mais liggéey est-ce que jaay montre dem ci marché luuma yi est-ce que nekk na liggéey boo xam ne turki yi ñoom seen législation nangu nañ ko. non si nangu nañ ko. nangu nañ ko ñoom booy soog a ñëw peut-être mën nañ fa nekk di mais boo demee ba yàgg ñoom ñooy dem sa ba dañ lay bëgg. turki waaw ñoom dañuy dañuy dem ba dañ lay bëgg da ngay gis. dañ lay jàppal sax place place bi day doon sa place fixe léegi dañ naan la ndax place bi da nga koy jël par ngay fay wala jour bi ngay ñëw heure boo jaayee ci ngay fay. léegi bu la neexee jël ko par ah, weer waa système boo am na. bu la neexee jël ko tamit aussi même am na naar yoo xam ni parce que ñun araba yi ñu daan yor dafa diis. araba mooy la araba mooy genre yi ñu teg suñu valise yi bagage yi nga xam ne moom la ñuy jaay ci bazar yi. Hmm. waaw araba lañ ko doon wax araba yi diis na diis boo xam ne ci jigéen dafa metti peut-être li ci li ko li ko góor àttanee sa jigéen àttaneew ko noonu léegi da gis naar bu baax yor oto comme seen camion yooyu ne la boo bëggee nga may fay par weer ma lay yóbbul ma lay yóbbu sa ma lay yóbbu parce que li tax kooku di la yóbbul day fekk yéen ñaar ngeen bokk marché yi ngeen di daje tout le temps ngeen bokk même marché yi ngeen di jaay mm, ah, parce foofu bazar yi marché lu may dafa bari jeudi bu jotee mun na am dëkk bu nekk ak marché am foofu noonu la. <laughs> mu nekk loo xam ne kon liggéey bu bu bu metti la. ci booy soog a ñëw. Mhm. maanaam mooy nga ñëw def marchand ambulant. sénégalaise bi nga xam ne dafa jóge fii mosul def ambulant doon mhm. fecc kooku bu ñëwee ndorteelam ci wax marchand ambulant dina metti de. du metti hmm. parce que sport ko gën a metti sport a metti waaw ko gën a metti mais la la. lee jaay la parce que boo seetloo jaay bi tamit da ngay dox. ah ngay dox doo taxaw doo taxaw da ngay dox dox des fois nga gis benn restaurant ñoom naar yi dañoo yëwee nag ci joxe lekk ak naan yërmande googu am nañ ko da ngay dox des fois ba sonn dugg ci benn place toog donte ni jënduñu sax mais ñu ngi naan looy naan looy lekk loolu moom mën nañ ko macha allah dañ la koy terale léegi na boo toogee dallu benn cinq minutes wala benn dix minutes ba sa xool seddaat tuuti nga jugaat tegaat ko ci loo formuy noonu waaw ñaata heure fay liggéey non bu dee bu dee jaay bi moom yaa moom sa bopp mën nga xëy liggéey. mën nga toog nelaw ba 11h wala ba midi nga jug bu dee ambulant bi nga jug sangu ba set dem marché bi nga xam ne moom la ñuy jëndee prix en gros yi nga jënd montre yi nga xam ne amoo ko woon ak modèle nga xoolaat modèle yi bees yi génn nga chargé sa canta teg ko ci. ñoom lan la euh, dañuy dañuy am ay usines yu defar ay montre waaw wala yow da ngay ñëw ñu teg la coon parce que doo ñëw rek xamoo montre yi. dafa am ay sénégalais yoo xam ne ñoom fa la ñuy nekk à li nga wax ne mm-hmm. mooy seen liggéey ñoom ay guide la ñuy doon wala boo nekkee Dakar ji soog a yegg si mm-hmm. te commerce dafa dox ñoom ñoo lay woon yoon bi euh, des fois ñu nax la des fois duñ la nax mm-hmm. nan la Dakar bi di dundee commencement bi non daqaar bi moom <laughs> ni mu koy dundee métti na foofu boo ñëw da ngay doon Dakar par force waaw waaye parce que bi may soog a ñëw ne damay dugg si njaay bi après dafa am kuñ ma boole lool léegi kooku nekkatu fa sax moom ndeysaan mi ngi États-Unis léegi uh-huh. mu ne ma chargeur sa cantaa maag yow ñu ànd ko mais man xaw ma montre mu ne ma xamoo yor nga xaalis ma ne ko man kay sama xaalis a ngi nii mu ne ma nañ dem mu yóbbu ma fi ñuy jaay prix en gros yi ma jënd jënd mu ne ma bii lii nga ko jëndee bii temps nga koy jaay bii lii nga ko jëndee temps ma chargé sama cantaa ba mu fees njaay bi dox na bëri na xaalis am na bénéfice ci sénégalais euh, nan la njaay mi njaay montre bi nu mu fa demee njaay mi daa tane rek amul bénéfice daa tane rek daa tane rek ambulant bi moom des fois nga dal ci mais des fois mun nga xëy journée sax benn montre sax ko jaay. waaw. Ah, waaw loolu waaw day day metti mun nga xëy journée doo jaay dara foofu nag la wutee ak marché luuma bi. marché luuma bi munoo xëy xëy xëy te doo soqeeku munul nekk. même bu dee ñaar dërëm di nga ko soqeeku foofu. ci marché luuma bi ci marché luuma bi. mais boobu da ngay am place. boobu da ngay am place parce que da ngay loué. fay tax fay waaw. ok bokkul ak marchand léegi est-ce que marchand ambulant yi dinañ ñëw foofu non amuñu droit bi dañ ko réglementé daal maanaam. non am na marché ambulant yoo xam ni dañ ko tere mais am ñoo xam ne bu ñaa ngi waaj a wàcc. am na ñoo xam ne dañuy indi seen cànta. lal teg ko noonu ci bunt bi fi yoon yi clients yi di jaar. fa lañ koy teg. ñooñu aussi tamit waa dañuy for dara. policiers yi du am ak ñoom. non boobu day fekk policiers yi maye. ah boobu day fekk police yi maye. mu mel ni su ma déggee li nga wax daal euh, Turquie dafa nekk dëkk boo xam ne dafa dafa réglementé. waaw maanaam nekkul comme yenn dëkk yoo xam ne daal lu waay lu neex waaye def wala ñu ne fii mbedd buur la deme na seen organisation sénégalais bi jóge fii nga xam ne dafa tàmm di def lu ko neex. bu yegsee foofu ban taxawaay la war a am. non bu yegsee foofu moom day taxawaay taxawaay dëkk bi nga xam ne loolu lañ bëgg. ok parce que mënoo ñëw fekk dëkk bi ni muy doxee yow nga bëgg indi sa dëkk ni muy doxee boo ko defee rek moom seeni dipot la ñu yor rek ak seeni oto police di wër. Ah. waaw ba ñu gisul lu leen neexul rek ñu dugale ci oto bi. <laughs> ne yóbbu la police tëj la fa laaj la sa passeport ne la ay ca Sénégal. nga ñibbisi nga ñibbisi waaw. Ah am ñu ci kersa waa waaw loolu moom mu nekk loo xam ne graaw na di fàttali mbokk auditeurs yi que yaa ngi ni déglu King FM 99. Euh, point diko japp également ci internet bi ci 3w king fm point sn donc bokki nga xamné comme niñ ko sunu euh, gan bi Mimi nek ko xamné ne vraiment jigen bu meun góor mm. à dund fofu nga xamné mom moy mooy euh, Turquie ngeen mun ak mom ci 88 628 99 90 88

ah dëkkuwaay bi moom ay jamono metti woon na. ay ndax boobu bariwul woon nit. mais léegi pour nga jóge Sénégal ñëw Turquie amul benn problème léegi. Mm-hmm. bu njëkk ma nag amoon na problème parce que da nga daan ñëw ay ñetti sénégalais ngay xam des fois sax da ngay dem ba ay ñàkk sax ma yàlla ci tur bi. Mm-hmm. étranger yi mooy congolais yeeg yooyu ñooñ ñooñ ngay bokkal kër. te ñooñu moom boo xefee dañ lay nax booy soog a ñëw. Mm. waaw boo xefee dañ lay nax mais léegi ku fi jógee tey dem sénégalais yi macha allah ñi ngi fépp. muy man muy keneen ku fa amul doomu nijaay am nga fa doomu bàjjen baa xarit wala koo bokkaloon koñ wala nga xam koo xam ni ku xam keneen dalay lay moom ne la sama benn xarit day ñëw dama bëgg nga dalal ko loolu am na waaw ok léegi boo ñëwee da ngay dal ci kër gi ñu may la benn temps boo xam ne la temps ngay liggéey boo commencé nag di liggéey ñu lenn ne yaa ngi for dara après dangay bokk ci lu euh, fay lu yaas bi dañ koy bokk location bi cher na fa cher na cheru léegi nag moom naa ne dañ commencé léegi. di di yokk di yokk waaw. ok ndax dañu gis ne léegi Sénégalais ñu ngi commencé di ñëw ak yu demee noonu. ak yeneen dëkk sax. ak yeneen dëkk yeneen dëkk waaw. Turquie dafa mel ni dëkk bu dëkk bu mag la non bu macha allah la dëkk bu la. ginnaaw bi ñu jógee ci location bi comme li nga wax après ñu commencé nag di ngay commencé di participer ak yooyu euh, commencé di làkk di làkk. làkk di bi làkk bi waaw. Euh, taxawaay bi nga xam ne da koy am ginnaaw boo jógee ci marchand ambulant mhm. war nga mën a def beneen façon liggéey mhm. yan liggéey ñoo fa amaat non liggéey yi fa amaat business nan la ñuy def ba nan la ñuy def ba ba dugg ci liggéey yooyu liggéey moom business la liggéey moom doo doo doo wax kenn dugal ma ci ok ndax boo demee tey ba ba ba miin foofu yàgg fa ñépp xam nañ ne dëkku sañse la foofu noonu waaw muy yére di dàll accessoire lépp léegi da ngay gis sax ku dem beneen dëkk sax nga ñëw ci boutique am di jënd foo jëndee mën na la turki des ay ree da lay jàpp yow mi nga xam ne dund nga fa mu leer na ne loolu amul mais ñoom dañ koy sagoo wala dañ koy ah, tiitaroo jël ay bagage waaw fii Sénégal am na fi ok ne turki lañ ko jëlee mais yow nga xam ne da xam boo xoolee da ngay xam ne lii nii du du du du bagage turki mais léegi da ngay gis tey man bu ma fa yàggee mën naa boole ñaari liggéey tey yàqalu ma dara may dem di jaay ci marché yi luuma yi nit nekk Sénégal yor boutique mais moom amul possibilité pour ñëw turki mais mën na ma woo ne ma ah allo Mimi ma ne ko waaw mu ne ma dama bëgg a xam bagage yi génn fan yi lan la léegi man damay dem ci boutique yi jour boo xam ne sama repos la ma wëral ko defal ko ay photo moo xam dàll moo xam yére lu mën ci doon ma photo ko envoyé ko ne ko lii ak lii ak lii moo génn mu ne ma prix bi est-ce que mun naa xam ñaatal ma wax ko prix bi bu dee intéressé na ko moom daf may yónnee xaalisam. yow mi nekk foofu waaw man mi nekk foofu daf may yónnee xaalisam ma demal ko ci marché bi wutal ko ay bagage après nag moo may moo xam ma laaj ko dama ko koy freetal wala dama ko koy joxal GP. ok léegi dafa am maanaam su ma déggee daal am na ay sénégalais yoo xam ne ñoom loolu liggéey la. lañ ko def waaw lañ liggéey lañ ko def. ñu lay am ñoo xam loolu kase sax mooy seen liggéey. amuñu beneen liggéey déedéet. maanaam bu sénégalais bu nekk fii. waaw ñëw wala koo xam ne wala Europe. wala Europe. waaw ah ñu nekk Europe tamit Europe si léegi sax xanaa bagage yi sax li muy dugg foofu sax mopp ko li muy dugg Sénégal. ok waaw ñoom ñoo ko soxla léegi loolu moom mooy nekk seen liggéey. waaw bu weesoo loolu aussi gis nañ ne comme li nga wax mbiru sa bëri na fa. kon mu mel ni kon liggéeyu boutique it war na nekk loo xam ne dox na fa. waaw liggéey boutique dox na fa. liggéey boutique dox na fa parce que am na xale jigéen yu bari yu fa nekk. ñoom ñu mel ne Aminta faal Aminta Gaye ak ñeneen ak ñeneen umu dem mhm. ñoom ñoo ñëpp ba am na góor ñoo xam ne sax loolu la ñuy liggéey ci boutique naar ñoom loolu rek la ñuy liggéeyee parce que naar ñoom dégguñu anglais soriwuñ ci. naar waaw léegi nag des fois dañuy soxla nit boo xam ni dégg na anglais léegi nga xam ni tout le temps xam nga dëkk boobu ku ne fay ñëw. étranger yi fay ñëw nga xam ne ñoom dégguñu làkk bi. mi ngi nii mi ngi nii nag gis nga nii lañ koy tegee. waaye yow seen montage bëri na di xool. voilà nii la nag nii lañ koy tegee. lii mooy la moo tudd nan. mooy cantaa lii la ñuy wax cantaa. lii ay ay table la di. waaw léegi table yi nag table yi yaa koy ki daaj lu dañ koy jaay léegi. Ah. léegi nag ni boo duyee nag sa kii ba mu bari nga teg client bu ñëw nga jaay des fois nag ñii di teg tam mun nañu am mille chance. waaw. ok du ñu am problème police nii non ça dépend parce que des fois da ngay jékki-jékki saay ñëw gis leen ñu ramassé dàqante bi <laughs> billaay des fois dàqante bi day day day saf saf sax waaw dañuy dañuy lal fu ñu war da lal wala dañuy tere am na yenn milieu yoo xam ne dañ naan kenn du fa jaay. ok dañ koy tere. léegi nag ñoom terewuñu mais dañuy bàyyi ba yenn heures yi. heure yi nga xam doto gisati koy dox ñu bëgg la ñu bëgg la may na la tek fa. man de fii daf may saf bunti. mo yow fi fi fi est-ce que du ak saraay sax. <laughs> fi est-ce que du ak saraay. fii sénégalais yi fi lañ nek sénégalais yi ñu ngi fépp légui ñi ngi ñu légui dañu tass ok ah ba paré lima neex ci ñom fit lañ am ñom fi ñi téré fa la dem tek bëgg xaaliss rek waaye ah, loolu tooñ la mo dañu bëgg liggéey rek. wa wa mais deut mais nak bëgg liggéey lool mom est-ce que lool est-ce que du togn aussi parce que tamit bu fekkee dañ la jàpp aussi def la diport la wala def la ko su noonu nga ne euh, ambassade bi jàppale wuñu ak yooyu tamit est-ce que du du indi problème. waaw ah, dina indi problème donc euh, loolu aussi nekk loo xam ne <laughs> il faut sénégalais yi xool si ñu bàyyi si xam ñi ngi doon waxtaan sànq ci wàllu wàllu boutique mhm. ce que sénégalais bu fi jógee tey bëgg a dem liggéey ci ci boutique par exemple nan la war a mën a def. non sénégalais bu fi bëgg a jóge tey tey dem dugg nga ne da nga bëgg liggéey ci boutique yi du yomb. day metti waaw. parce que boutique yi ñoom dañoo soxla benn ku dégg anglais Euh, aku deg dégg sen lak tuti tuuti sax même boo déggul ñoom seen làkk sax nga di anglais bi dañ ko soxla anglais bi ok léegi nag wa pour ñuy mën wa léegi li la li la dimbali moy bo démé li rek nga mëna def wala fabrique hmm, jaay ci ci jaay ni ambulant wala fabrique té te fabrique sax benn côté man digal na tay kuy soog dem nga jaar ci fabrique lu bax la parce que tay bari nañu fa nek ño xamni ña nga fa té dégg ñu laq bi fabrique yi lu tax lu tax nga. non fabrique yi parce que naar yi ngay liggéeyal ñoom sa ñoom ci seen bopp. ñoom ñooy bëgg ñëw di làqanteeg yow naar di waxtaan ak yow lay waxtaan boobu ñuy waxtaan ak yow bu yàggee da koy dégg. Mm-hmm. waaw. seen làkk bi jaxasoo non jaxasoo na doy na waar. bi man gis naa ni ñu ko bindee mais loolu. kenn non dafa doy war hmm? <laughs> dafa doy war tilk tilk ci boppam mom bam xeet nan lañ mel ci wàllu racisme wàllu doomu aadama ban ban façon nit yi. non bu njëkk ba moom sonaloon nañ ñu da nga daan romb façon tour bu ñaaw bu ne la ñu daan wooyee waaw lu ne dégg nañ ko wala tey ngay jaay ambulant romb ci benn quartier boo xam ne kenn gis la dañoo mën a seetaan nag ñoo gën a dañ kumpa dañ wax senegal dafa dañ kumpa mais Turquie gën a dañ kumpa ci yàlla bind mhm. léegi ngay romb ci koñ bi <laughs> nga gis kenn daal di def signe woote yuuxu ñëpp ñëw sëpp di la seetaan ndax ñuulaay bi ndax su ñuulaay waaw dañuy soog a dem loolu moom man gis naa ko fa ñoom dañu dañu lan la. en fait ñoom nit ku ñuul am na ñoo xam ne xamuñu nit ku ñuul. am na ñoo xam ne saan bu ñu gisee nag ñoom affaire bi da leen di jaaxal dañ naan nañ photo dañu bëgg di photo ak naan nañ photo wu nañ def lii mais ñu ci bari dañuy def photo yi pour après mën laa saboter. Ah, noonu la ñuy def ah d' accord ok photo wu ñu pour kii mais dañuy photo. en tant am ñoo xam ne dañuy foto des fois pour saboter bi am na ñoo xam dañu lay gis bëgg la te yàlla rek tax mhm. waa

ok donc loolu mu nekk loo xam ne rek euh, lu am solo la donc gis nga sénégalais bu fi kon di jógee. Mhm. lim fa mun a demee muy wàllu visa intégration bi yenn façon liggéey yi nga xam ne euh, dina ko fa mun a liggéey moo xam ci wàllu wàllu euh, ambulant. Mhm. moo xam ci ci boutique yi. ci boutique yi ah, moo xam ci. ci ci fabrique yi. wala njaay bi wala njaay bi. Mhm. wala façon liggéey beneen bi nga xam ne yaa ngi koy wax muy jëm ci wàllu groupage. groupage maanaam ay ak yu demee noonu. donc mais ñooñu ñoom am nañ doole de parce que vraiment boo buggee indi conteneur ak yoy jël dajal ko day fekk nga yag fa wala lan la. non day fekk nga yag fa sénégalais bu fa bëgg dem. ko xam tay ji commerçant bu jógee Sandaga dem turki suba jënd fa bagage pour mu mëna a ñib si koy digal. non comme comme comme mu bëgg dem. jënd bagage jënd bagage waaw. pour bëgg a ñëw waaw si loolu mën na yomb lu yomb la. non non c'est que bo dépassé say 23 23 yi nga xam ci mm-hmm. avion bi la nga jënd par exemple quantité bu bëri ay valeur par exemple ay 1 million 2 millions 3 millions. non quantité boobu day dépendre ci yow. bu la neexee. Mhm. mën nga ñëw ba aéroport fay MCO. mi ngi mel ni tey ñu may la 23 23 plus 10 bi marché yaa ngi nii. yéen marché bi garaaw ah. waaw marché yaa ngi nii. Ah. lii mooy marché yi. Maïssa yow mi nekk ci digital lii moom <laughs> saa ah gis nga marché gars yi. lii mooy marché yi. marché bi garaaw na ah. nii lay mel.

poubelle bo xamné pour lii dalay lenn pour mbalit la waaw. ok donc ñu gis également Turquie walu commerce dox fa. dox na fa waaw mu nek lo xamné ne euh, sénégalais yi tamit gis nañ né euh, souvent ñoo ñu ñëw di jënd ñi di jënd false ñi di jënd original ñi di Turquie ban façon njaay li ñi njaay ban façon liggéey li commerce la ñuy def ci walu jëré wala yu démé non non xam nga fals ak original ak faux loolu day dépendre ci sa poche. ok ah waaw àddina ci àddina waa ci àddina foo dem am na foo am na vrai mais loolu ci ci ci yow lay des parce que tey jii mënoo indi tey sa un million nga bëgg série boo xam ne loo ci yëkkati trente mille lay jar benn ah. tey nga yor un million nga bëgg ko jënd xam loolu du du dem te nga ni un million yooyu ci nga bëgg fay fret bëgg ci fay lépp du dem dangay ngay jënd yoo xam ni yu yemamaay waaw yu deuxième choix wala dara waaw kon kon sénégalais bi bi bi jógee fii nii mhm. bu ko dem Turquie dem jëndi marchandise mhm. na na gànnaayu waaw na gànnaayu xaalisam parce que da nga gis am koo xam ne sax day ànd ak àllaa euh, jeem ñëw vacances mais day ñëw vacances ba foofu daane mais attends mais Turquie kon lii moo fi am da nga gis day obligé woote Sénégal ne pour ñu dugal ko xaalis moom jaayul mais day ñëw pour jënd ah. jaayul quoi mais dafa ñëwoon vacances gis na yi gis na ni mu ak yi lay def dañ ko fay jaay table ngay table yi table yi table la table lañ ko <laughs> donc mu mel ni euh, na vraiment bu bu mag la sénégalais yi découvrir à travers seen émission Allo Diaspora bi am ci King FM 99

aide bi association wala daayira wala wala wala sénégalais nan la ñuy dundee foofu noonu ñoom communauté maanaam en tant que sénégalais ak sénégalais soxalante nañ comme ni ñuy faral di wax léeg-léeg wala dañuy jàppalante nan la sénégalais yi dundee foofu. non léegi moom jàppalante fa am na fa bu baax waaw léegi moom dañoo mànkoo doon benn àddina nag euh, bu mboolee doon diis du ñàkk koo xam ne faw am ko ci xol bi laaj. Mm-hmm. mënta ñàkk. waaye kooku xol bi laaj moom defe naa bu xolam di metti moom na ko kalaameek yàlla parce que nit mën na tukki tey yow nga yàgg fa ki ñëw tey yàlla may ko lam la mayut kon boo bëggee xool ki nga xam ne yàlla da ko may yow da ngay sonn <laughs> daayira yaa ngi fa am na daayira tiijaan daayira murit laayen bi yëpp a nga fa bu murit bu xewlee bu laayen beeg bu tiijaan bi dañuy dem tiijaan bi bu xewlee murit bi ñëpp maanaam dañoo doon benn ba mënatoo xàmmee léegi kenn <laughs> waaw jàppalante moom am na fa bu baax <laughs> mu nekk loo xam ne donc euh, daayira yi comme ni ñi nga xam ne dañ koy jàppalante mm-hmm. euh, tey jii nii malgré taalib comme par exemple bu amee koo xam ne sénégalais dafa fa dem euh, ban taxawaay dafa dem ci association wala dafa war a dem ci ambassade bi wane ni ñëw naa wala lan la war a def baanaam daal ba nga xam ne bu malgré taalib bu safaan amee ñooñu mu yaakaar dinañ ko war a mën a ñëw dimbale. non sénégalais bu ñëw léegi est-ce que di nga tal sax dem ci ambassade ba. ndax déjà boo ñëwee yow am nga ku la dalal yaa ngi ci biir këram. amoo benn problème yaa ngi lekk yaa ngi naan kooku mu mi ngi lay wutal liggéey ci loo jàpp boo demee nag ba am liggéey commencé di miin moom li muy fay donte ni amagoo di nga dina di nga ci comp yow ci li ngay am as ngeen boole participer mu fay loolu la mais c'est très rare nga gis ku ñëw dugg ci dëkk bi dem ci ambassade bi ci consulat bi amul waaw c'est très rare léegi bu bu ñu amee problème dañuy wax ne way ambassade bi liggéeyul wala jàppale wu ñu kii mais sénégalais bi moo demul aussi pour wane ne na. pour wane ne yegsi na dëgg la mais bu fa kenn amee problème yàlla tere yàlla na yéex tey kenn. génn fa àdduna génn fa àdduna dinañ dinañ ko woo ñi nga xam ni ñoom ñooy jiitu foofu noonu mooy ñooy suñuy mag ñooy suñuy pàpp ci dëkk bi ku ci mel ne coy moom ñëpp a ko xam foofu Mouhamed moom dina wootee

Euh, bu ñu doon xayma turki ni mu yaatoo nan nga ko mën a xayma. turki mënu ma kaa xayma parce que dafa dafa rëy. dafa rëy turki des fois da ngay jugee Istanbul. Mhm. comme mi ngi mel ne yaa ngi Sénégal nga ne damaa jóge Sénégal damaa jugee Dakar maa ngi dem luga dëkk boo dem da ngay yaakaar ne fii mooy turki looloo fa am. parce que waaw développé. dafa développé dëkk bee yaatu. moo tax sénégalais yi léegi ñoom tamit sob nañ sob goo xam ne dëkk boo dem da nga fay fekk sénégalais léegi. des fois da nga nan ax ah, man daal bi xama dem jaay jif fa na amul sénégalais nga dem fekk fa ñett nga fa tok na nga lo di jaay tek sen cantaa ñi ngi fepp legi bu police yi ñewé ñu ak ñom mais ñun ñun ñun sénégalais dañu wara sante yalla parce que ñun chance biñu yalla may ñun fuñu dem rek dañuy bëgg naar yi tamit nonu fini ngay gis ni man kër gi la dekkone juste fini waaw télécentre bi la ñëpp di wootee euh, télécentre Yunus, la mi ngi ni mais yow Lamine yow ki sam boy bi dafa garaaw de Maysa. dafa garaaw moom Maysa génn na fi ndaw si dëkk yow. <laughs> ah fi de laa dëkkoon fi ni la dakaro fi ni waaw kër gi ni ñi di feñ fi la dakaro ci kaw deuxième. hey Maysa <laughs> ciy sam boy wa tay de moom moom nice li mooy télécentre bi. <laughs> wilaay wa li moy télécentre association. Mhm. mais digënté sénégalais ak représentant diplomatique yi ambassadeur ou ambassadeur bi wala consul bi ban relation lañ am. non am relation bu parce que avant mën naa ne loolu amul mais léegi bu ñu xewlee foofu dara da ngay gis ambassadeur bi day bàyyi lépp ñëw waaw day day ñëw jàpp ci waxtaan ak ñun ba dem nañ sax ba léegi am ñoo xam dañuy woote fi indi leen Turquie pour ñu def ñi nga xam ne amuñu passeport te yàgg nañ fa bëgg a mhm. ñëw dañuy defaral foofu léegi passeport ñu defal leen ay ay ak ak wàllu këyit wàllum këyit yi mais li ma jaaxal Turquie ngand gi mu ngand wala dañuy wax ne nañ ñëpp ñëw Istanbul wala nañ ñëpp ñëw Ankara wala nañ ñëpp ñëw nan lay demee non non non non non wax ne ñëpp ñëw Istanbul wala Ankara nit ku nekk yaay xool fi nga sentir sa bopp nga ni nga nekk fa. non non pour comme bu ñu indee valise diplomatique yi pour mun leen defal ay passeport. Mhm. wala ay carte d'identité ak yooyu. Mhm. donc euh, nan lay nan lay demee dañuy euh, ci ambassade bi la ñuy ñëw wala dañuy dem valise bi day dem ci dëkk bu nekk. no non non day ñëw Istanbul. Istanbul lay day ñëw ok donc ku bugg. ku bëgg da ngay ñëw nga dañ lay wax demal photo indi say photo loolu lépp da nga koy def. Mhm. waaw dañuy ñëw ba Istanbul. parce que ambassade bi moo leen yabal parce que ñoo xam ne tey mënuñu dem ba Ankara Ankara dafa sori. boo bëggee jógee tey Istanbul bu fekkee amoo njëgu jënd avion fu njëgu billet foofu day metti da ngay te bu dee bus yi am na ñoo xam ni da ngay fanaan Istanbul ak Ankara boo bëggee jël bus yi moom da ngay fanaan. bu ñu koy xayma war na sori. oh dafa sori. ah oui sori trop. na mot eh, est-ce que est-ce que Tamba gënu ko jege. mu ne. est-ce que Tamba ko jege. ah loolu moom sori na di. sori na de eh, Ankara jegewul de. ah mhm. ok donc mu mel ni kon euh, ambassadeurs yi li ñuy faral di kaas di wax ne sénégalais yi. Euh, di une yenn deuk vraiment ñu sen ambassade wala ñu consul yi mais le non day am day am parce que ñoñu en général ñi def lool moy ñi nga des fois day metti ci ah. par exemple am ko sénégalais dem ba sen jeex peut-être kenn woné ci ambassade bi wax ko ko mu yéxa ñew wala duñ ko gis amana dañuy obligé waat sénégalais yi nga wu waat faj waa ji moo xam day opéré moo xam day ñibbisi. xam nga Sénégal du ñu wax ne euh, dëgg la naam lu neex sax dàq moom amul. Mhm. Euh, sénégalais yi nekk Turquie am na ay jafe-jafe yu ñuy faral di jànkonteel. Mhm. lan nga ñu si mun a wax yan jafe-jafe la faral di jànkonteel nga xam ne tey jii vraiment bëgg nañ euh, wa ilaa état bi dimbali leen si wala sénégalais yi nga xam ne ñu ngi fa nekk bu ñu fa demee ñu moytu ko balaa ñoom it ñuy dugg ci. ci kàmb gi problème kàmb googu waaw. boo seetloo Turquie li gënoon a jafe. defe naa yàlla suñ borom yombalal nañu ko mooy mm. papier. muy kayit yi kayit naa ci ñëw léegi. te kayit yi ñu ngi koy maye. looloo gënoon a jafe bu ñu daan jooy sax loolu la ñuy jooy. kayit papier yi lañ daan jooy. da ngay gis ku fa ñëw am na ñoo xam ni moo tax bi ñu mayee papier yi sax sama xel ci ñoom la dem. Mm-hmm. parce que ñoo xam ne ay 2008 lañ fa nekkoon. Hmm? ñu fexe ba ñëw ba yàlla def ñu commencé maye papier nee naa ne donte ni 6 mois la ñuy maye sax baax na. parce que di nga mën a jug bu dee yàlla may na la nga jot a dajale dara nga dem ñibbi si Sénégal say mbokk gis la waaw <laughs> loolu amu fa woon te am na fa jafe-jafe bi ñuy wax avant la woon mais nekkatul léegi wax dëgg yàlla léegi moom ça mhm. mais nag tey jii boo jugee Sénégal ne damay dem dëkk jàmbur amaana yow dangaa bàyyi say mbokk bàyyi yaay bàyyi papa ak koo mënti bàyyi boo demee dëkk jàmbur pour man war ngaa mën a liggéey mhm. bu dee nag nit ku am jom nga am na ñoo xam ne moom na ma yàlla baal ci kàddu gi Dret ñak jom dafa ne ci seen ba pare mhm. na da ngay gis ku bàyyi fi wala yaayam passal ko teggi natam sonn ci bay bëgg wala papam wala ay fréram sax ñi nekk benen Europe bi ci France ne ko fan nga bëgg a dem mu ne ko Turquie ndaysan ba yonne lu mu am fexé ba wutal ko visa mu ñew nekk ci naka sudul non am na ko fay def ño xam ne duñ liggéey ño xam duñ liggéey nañu xey teud nelaw yewu ju guddi jot ñu dem boîte lu ñuy liggéey ci boîte bi. luñ fay liggéey ne ci boîte ba naka su dul noonu ñëpp xam nañ boîte boo fa ah, xam nga dem boîte sax dara nekk ci ndax tey ji bu fekkee liggéey kan nga mën nga liggéey ba weekend bi jot boo liggéey ba weekend bi jot samedi nga ne xaaral ma dem resto wala nga ànd ak bu dee ay góor nga ànd ak sa say say copain bu dee jigéen say copine ngeen dem waxtaan dindi stress tout na ñëpp xam nañ ni immigré dafa metti mhm. ñëpp xam nañ ne stress bi fa nekk bu kuñ ko waxul ku ne doo ko gëm foofu noonu ah. metti na moom ok parce que des fois da ngay commencé comme li nga wax sànq ci boutique yi mën nga commencé liggéey ba foog ne yaa ne naar yi juste ñu naar justul mën nga commencé liggéey mu jékki-jékki saa yi ne la temps yi daal client amul dama bëgg nga arrêté léegi da ngay obligé arrêté ñëw toog ñoom seen fay seen fay baax na seen fay avant baaxoon na tane woon na parce que boobu fekk na xaalis bi yàqoogul xaalis bi demeegul noonu mhm. mais léegi xaalis bi moom dafa wàcc torop seen xaalis baaxatul dafa wàcc wàcc bu baax sax donc mel ni fay bi donc donc dajale fa du nekk loo xam ne lu lu yomb lay doon entre guillemets comme ni nga koy waxee. Mhm. mais muy nekk loo xam ne vraiment euh, sénégalais mën nañ ko fam comme li nga wax liggéey stable fa. non non liggéey moom <laughs> liggéey moom stable fa ça dépend ci yow yow yaay xool nag li nga bëgg a liggéey nga liggéey ko. bu dee ci boutique yi. bu dee ci boutique yi nga bëgg boutique moom ne la ma la wax sànq rek soxla nañ anglais. aussi tamit des fois soxla nañ genre mannequin benn taille boo xam ni ku ci mel sama xarit bi Assane nim sewé soxla nañ taille yoy nga xamni dañuy bëgg ku len solal ah des fois dañuy bëgg lool comme ay Miss Ketchax quoi voilà ay Miss Ketchax wa ñu lañ soxla waaw Miss Ketchax amna aussi tamit comme sama genre gi dañuy soxla tamit taille bu jonga mo aussi ah lool loolu tam ah lool dañ koy so parce que amna nek ñom duñ defar taille bu ndaw rek amna boutique yo xam ñom tay yu mag rek lañuy jaay ay quarante cinquante waaw mannequin la ñuy doon mais dañuy soxla aussi ku xawa am gabarit tuuti nga gis boutique yoo xam dañuy soxla taille fine hmm. day am ok euh, mu mel ni kon euh, boutique yi donc nekk na loo xam ne sénégalais yi wax dëgg yàlla euh, mën nañ fa liggéey mais dañuy gis ne ñu ci gën a bëri également ñoom dañuy opter pour vraiment dem ci ci ci luuma yi comme ni nga ko waxee mhm. sànq ak ci ci jaay montre ak mhm. yooyu donc dafa mel ni boobu moo gën a sedd moo gën a assuré jaay montre yi sax boo seetloo sax bu njëkk ba la ko xale yu góor yi bëggoon mais léegi góor ak jigéen sax liggéey fa aar yi tamit am na fa aar yi aussi am na xale jigéen yoo xam ne sama xarit yu bari fa ne ci aar yi sax la ñuy liggéey da yónnee fii ñu jëndal la comme ci lawbe yatt yeeg yooyu ah. seen bant yeeg yëpp ay ay masque waaw ay maskak yooyu quoi ñu yónnee ko ok foofu dox na fa mais en même temps am na marché bu ñuy bu bu ñuy jëndee ci marché boobu noonu la ñuy boole ak aar yi jóge fii ñu jaxase leen mu nekk loo xam ne waaw mu nekk loolu tamit loolu tamit dox na fa loolu aussi dox na ko maanaam kon sénégalais bu fi jógee daal bëgg a moodu moodu ji foofu mhm. mun na yëngu ci wàllu aar mhm. wala mu yëngu ci wàllu boutique marché luuma wala ci groupage yi te cargo yi groupage yi sa bari na léegi da ngay gis ku ñëw nekk ci dëkk ba doo mat 6 mois nga tegee ne montre ba sa benn xarit boo xam ne mi ngi ci groupage mu xëcc la nga ñëw toog ci wetam client bu ñëwee nga doon giddam nga yóbbu ko ci marché bi da lay fay journée hmm. waaw da ngeen di waxaale dalay fay journée wala bu la neexee client bi aussi bu ñëwee nga dalal ko sa kër li mu naree fayee hôtel yow mu jox la ko nga yor les res ko lekk ak naan ah mhm. tam dañ koy def lool tam lool tam sénégalais dañ koy def sénégalais yi dañ koy def waaw sénégalais yi bëgg nañ pexe de non macha allah am na ñoo xam ne dañuy jël kër guddee lëmb duñ duñ duñu fat kenn duñu dëkk a kenn ñoom kase léegi nag ci ci ci pour ñu fay mi ngi dépendre ci clients yi di ñëw nit ñi ñëwee waaw nit ñi clients yi ni ñuy ñëwee te Turquie dafa nekk dëkk boo xam ne dafa ibbeeku sénégalais yi bëgg nañ ko bëgg nañ non dëkku business la bëgg bëgg bëgg nañ ko bëgg nañ ko ku bëgg a liggéey moom dëgg te liggéey tax laa jóg wax dëgg yàlla muy fii Turquie ak beneen dëkk liggéey rek tax laa jóg boo demee di nga liggéey Malay gii sax Mali mhm. ku fa dem te bëgg liggéey sax di nga liggéey boo demee di nga di nga liggéey donc loolu nekk loo xam ne lu am solo la 88 628 99 90 muy nek numéro bi nga xamné euh, ñi bëgg a waxtaan ak Mimi poser ko question Sénégalais nga xamné seen xel euh, japp na pour ñu nap na pour ñu dem fofu nga xamné ne moom mooy Turquie dinañ si ñew sank waxtaan nañ ci walu ambassade yi euh, ak consul yi nga ma xamal né ma amul problème ak yëpp Sénégalais yi wax nga ma aussi ci échec mooy booy fa nek duñu liggéey di sacc mm. wala ñuy dem ci bois de nuit ak mm. lan la Turquie di tere lo xamné bo fa démé waroo koo def non Turquie déjà loo xam ne ñoom bugguñu xam nga dëggum na am nañu ko lan la turki ñoom buggul non loo xam ne moom wax dëgg yàlla tooñ moom la turki ñoom moom boo boo boo bëggee dégg-dëgg boo demee dëkk jàmbur fekk gis ñëpp def yaramu neen ànd la ñoom def yaramu neen loolu moom boo ñëwee ci dëkk mu leer na leen lii bu ma ko defee neexu leen parce que ñoom wéruñu kan turki turki wéruñu wéruñu moo tax doo kuy jéem a naan da ngay xeex ak ñoom wala danga leen di song dootoo ko defati <laughs> danga koy mujjee def ah bon ah, ndax ñoom dañoo am benn solidarité boo xam ni en fait ni ma ko mën a expliquer tey benn turki mën yow mën nga tooj benn turki keneen jóge fële xamul xamul sax turki bi mais da koy jàppale te sa bakken mën na cee xaj waaw hmm? ah, ñoom dañuy sot te amul paaka amul bant lu ñu jot dañ la koy dóor moo tax des fois nga gis sénégalais buy jaayanteeg turki yi dënn dañ lay dóor ba nga sedd ñu dugal la ci kees indi la waaw dañ koy def hmm? waaw moo tax moo tax sénégalais yi foofu ñu bari dañ leen di moytu parce que wéruñu ñoom seen xeex dañuy sot ak noo mënti toll buñ la xamee buñ la xamul nekkal nit ku weex rek ñoo xam ne yow mii yéen a bokk dëkk yéen a bokk sang booy xeex ak keneen mu nekk nit ku ñuul wala étranger dootoo ko defati waaw dañuy sot mais dëkk bi yan règlement règlement lañ fa teg ne par exemple lii ñoom wax dëgg yàlla bugguñu ko règlement yi ñu fa teg sénégalais bi maanaam tey jii man mhm. su ma fi jógee di dem Turquie mhm. naa xam ne lii daal ma fa yeggee moom jarul moo fay jege xam am na dëkk yoo xam ne dañ ne borom ñaari euh, maanaam jigéen ñi taxawaalu guddi wala jaay seen bopp yooyu bu leen jege. Mm-hmm. wala est-ce am na dëkk yoo xam ne loolu dañ koy wax turki ñoom lan la ñuy parce que dafa mel la ñuy def peine de mort sax di turki en tout cas borom ñaari tur yi bari na fa. bari na fa ñoom moom foofu defe naa dañoo joxe sax autorisation bi. donc loolu <laughs> waaw ak euh, gel yi nga xam ne aussi dañuy taxaw foofu noonu tamit di jaay seen bopp. ba sénégalais yi bokkuñ ci non ñun foofu. Turquie dañoo seedeel ba boo waxee dañ naan ñi fi ñëw étranger yi fi ñëw sénégalais ñoo fi dàq liggéey dañoo nangoo liggéey moo tax ñun dañoo bëgg léegi dem na ba ñi nga xam ne ñoom ñooy taxaw di jaay seen bopp boo ñëwee laaj leen sax fa lañ dëkk donte ni ñii Congo ñii Côte d'Ivoire yeneen dëkk dañ naan la from Sénégal hmm. waaw léegi ñun sax suñ tur léegi la ñuy joxe waaw dañ koy def ba des fois da ngay gis benn naar boo bokkal marché mu ñëw ne la yow barki dem gis naa fee sa benn mbokk maa ngi koy mooy loolu quoi ay ne mhm. ko yow fan nga dëkk mu ne Sénégal man ne ko fan lay taxaw mu ne fi man ko waxul dëgg bu doon loolu kon man du ma toog fii du ma xëy si 6 heures du matin di wàcc 21 heures kon damay dem defi li muy defi ndax moo gën a yomb ndax yéen loolu ngeen bëgg xaalis rek yor ngeen xaalis sama ngeen koo joxe kon duñ fi toog waaw kon loolu mu nekk euh, loo xam ne euh, du sénégalais bu fa dem moom na ko moytu waaw na ko moytu bu baax a baax a baax sax doxul waaw ah, doxul moom ak xale góor yi nga xam ne moom sàcc rek lañ fa nekkee sénégalais yi waaw ak tux mi am na ñoo xam ne sax dañoo tox ba ñu yenu leen ndax tox mi da na a mujj a dof loo ah bon <laughs> waaw toxul tox muñ tox muñ tox muñ de moom <laughs> mbudu de ku <laughs> eh, moo taxit de am na ñu ñibbi si de ndax loolu mbudu de moom doxul moom mbudu moom dem ba tëj ki di ko fa tox moom ko moom baaxul mu mel ni kon wàllu bu ma déggee bu baax kon drogue drogue dañ ko fay tere comme ni ñu koy teree ci dëkk yu bari euh, et puis am na fay sénégalais yoo xam ne dem nañ fa comme li nga wax ci wàllu échec seen hmm. prison yi tar na de. prison yi tar na ñoom dëkk boo boo boo jàdd sax am na prison ñoom. <laughs> ah bon waaw. ñoom mënoo dox deux parties auto policier du circuler ci dëkk bi mënul nekk. Hmm. waaw Turquie nekkul dëkku caaxaan de du dëkk caaxaan te tamit nekkul dëkk boo xam ne lu waaye neex def moo tax ma ne la ñun sénégalais yi fit lañu am mais ñun li ñuy tere ñu ngi koy def. parce que li ñuy tere mooy des fois lal ci mbedd yi dañu dañoo am fit dañ koy def bu ñu leen séenee ñuy ñëw ñu profitoo lem daw bu ñu demaatee ñu tegaat hmm? waaw prison yi bari na fa am na prison boo xam ne aussi tamit pour yaa bànj yi la mooy maanaam étranger yi. li ñu leen tuddee. yaa bànj. yaa prison yaa bànj. Mais c'est seetal prison prison ou Turquie y a loolu moom <laughs> prison bu doy waar la de dëggantaan na di prison yaa pour étranger casser kase la pour étranger rek la nekkul aussi tam lu metti parce que am ñoo xam ne des fois dañ leen fay dugal pour yar leen ah. am na ñoo xam tam dañ leen fay dugal pour indi leen ñu ah bo defee naka sudul la ah bo boo naka sudul mën nga baña def naka sudul non sax nga am erreur mo xam ci papier wala ñu téré la fenn nga taxaw fa ñu japp la nga ñëw ñu ne la an sa papier nga won leen loxoy neen bu dee ñu bon nga dajeel ñaa la dugal ci oto bi ñu indi la nga ñibbisi ok waaw ok am na ñeneen ñoo xam ne dañ lay dañ leen di bàyyi am na ñoo xam ne dañ lay bàyyi bu dee da ngaa dajee ku ñu baax dañ lay bàyyi Turquie ñoom seen législation comme sénégalais bu fa dem am fa doom moom doom ba day am nationalité doo am dara mu ne doo am dara <laughs> ah am doom ak sénégalais eh, eh, maanaam monsieur ak madame Mhm. ku fa am doom ku ne bu sa doom dëgëri indi nga ko sa yaay teel la ko baab sa goro baab sa pap <laughs> maanaam boo fa amee doom daal liggéey bi du ah. du yomb non non boo fa amee doom maanaam téye ko du yomb téye ko du yomb ok amul problème nag bu fekkee tamit aussi sa jëkkër yàlla may na ko liggéey boo xam ni dina la ci mën a dundal dundal ci yaayam li may yónnee fii Sénégal ak mhm. moom tam fekkee mën na la yónnee yow mi soxnaam tamit mu mu yónnee la mu yónnee la en tout cas di fàttali mbokk auditeurs yi ginnaaw bi minuit demee ba tegal 57 minutes que yaa ngi ni déglu King FM 99

jël décision pour replier euh, loolu aussi dinañ ci waxtaan parce que am na yeneen business yoo xam ne euh, yaa ngi koy yaa ngi koy yaa ngi koy def fii donc euh, Lamine dañuy def benn pause musicale rek donc. Ah, oh. bi Lamine femme bi gënaaw na de. mel ni mbëkk mi kii lim ñuy wan ñi wala du moom. ah kon moom la rek de parce que mbëkk bi moom dox na fa non man na bu ma doon mbëkk du ma jël bu suuf bi. ok man géej gi laa naroon a jël. pare woon naa moom pour mbëkk moom. expliquer ñu mbëkk mi déjà Turquie mbëkk mi lan la parce que am na ay danger moom.

lii day fi am. <laughs> may sa lii ñu wane yow gis nga géej gi ni mu toll. waaw <laughs> lii la de <laughs> mais mais ñi ko fay def ay étranger lañ de. ah étranger ñooy def moto yeneen xeet yi yeneen xeet yi africain dañ koy def ñun tamit sénégalais ñoo xam loolooy seen liggéey du ma surtout mais am ñoo xam loolooy seen liggéey foofu dañuy jël booy leen dugg loolu xarul la loolu danger tamit moo tax it dañ ca seek nag daal dafa nekk loo xam ne ci am xaalis nag moom mais wóorul wóorul moom deug yalla bu def xéetu gal yi ni li ay ki la li galu galu ngalaw la ngalaw la wa moy ni manque ni risque la ki jeun sax mën nako bënd <laughs> bu so da ngay gis ku dem ba ci digg ba gal gi beut am anu ñoo xamni seen doom lañuy and defa nga gis ko ëmb ba 10 am fit ëmb waaw bo dugg ci bir billahi ëmb ëmb da ngay gis ko ëmb ba 10 étranger ye xam nga mom dañu am fit ya, dañu am fit <laughs> Mom fit mom ci ñoom la fekk baax sénégalais yi sénégalais du ko def sama copine yi bari fi mu toll nii ñi ngi ci Europe bi te ci lii lañ jaar bari mais tolloon na mama bo xam ne nag moom frontière Grèce ak frontière turki do amoon problème benn instant dañu ubbi won frontière bi waa Turquie ci turki ah frontier. Turquie ñoo bi frontière ñoo bi woon frontière yi boobu temps boobu moom affaire yi dox nit ñi commencé di dem di dem di dem mais boobu comme man biñ koy ubbi dem naa ba te macha allah yàlla nga ma fay wërsëgalee dara. ma di jaru ko yaa ngi doon mos quoi. waaw boo demee feneen da ngay recommencer à mais mbëkk mi wóorul wóorul li nga wax rek gàccee ngi ci nama ngi ci. noo koy gàccee jëm. waaw <laughs> ah, moo ci ëpp moom. Ah, mbëkk mi a génnaat da ngay dem ba ci biir police yi gis la wàññi la comme nii rek yor seen géey comme nii. seen ah. gaal ma waa ñu dugal la comme nii rek. lii xoolal nit ñi bu lii la de lii oh. ñii mais ñii day am ñu ci mais yow xoolal kii. waaw gis nga lii la moom la tax na di kii bi xanaa jënd gisuñu ko. <laughs> da doon lekk de. waaw lii daal moo fa am waaw yomb na yombul nag moo wax dëgg yàlla mais am na ñoo xam ne aussi dañuy ñëw Turquie duñ fa sentir seen bopp. oh duñ fa gis seen bopp waaw duñ fa gis seen bopp ndeysaan dañuy préférer dem beneen dëkk mais comme nii bu fekkee dañ la jàpp. dañ lay delloowaat Istanbul gi gi nga jógee dañ lay delloo tëj la fa ay fan wala ñaari fan ñet après ñu libéré la après ñu bàyyi la ñu bàyyi la waa nga continuer waaw mais boo fa jógee moom mais fii man ni ma gis ni Turquie mhm. fii amul foo ci géej la nga mën a jàpp dem parce que Grèce île la Grèce île la waa léegi nag ci ci boobu noonu nag ci la jaar ba kii pour mën a dem ñu bari ñu bari jaar sama copine yu bari ak ñu góor ñu bari ñu ma xamoon léegi ñii ngi ñii ngi Turquie macha allah te ñi ñu bari fii la jaar fii la may sa wanal internet yi ndox ki lii kii dugg ci erreur eh, eh, eh, la de lii la de li boy mbeuk mi mom te nga wax gaay ñu bañ cee dugg non man mom digaluma mako kenn mais man mom paré woon ko def ko xam na dama am fit non yow kañ mom soxna si mom tarkal la yow kañ mom paré woon ko def ko yem nga ma lol way lol mom soxna si boko defon day na war di te nga bañ dugg ci lii mais dara peut être xagn na yàlla moo tudd sax damay dem mais paré woon pour def ko après ci la tok né na liggéey rek grawul wowoon wonna kay sama nijaay ba nan ko préparer ma pour nga dem pour suma demone mom ma wax ko après bu may jël say yëpp donc mu mel ni ndaw si dal bi nga xamné suis ci mbëkk mi donc mu nekk lo euh, li Omar pen di wax euh, vraiment donc ci la euh, sax bënn ko mom amul bankas donc mm-hmm. wax dëgg yalla mom donc nga am benen yoon bo pour dem turki vraiment dem ci dëkk yi donc immigration fofu nga xamné moy turki dal que ba paré Grèce sax fim nek ni dañu frontière problème

tëggee ñoom. am na benn kilifa goo xam ne sax ndeysaan moom est-ce que bokkul sax ci ñi njëkk a mari Ablaye Diallo. waaw ah, moom ndeysaan association bi ñu bi ñu sob bu njëkk ba moom moo nekkoon président bi sax waaw. Ah. tëggee ñoom rafet nañ. ñaaw ñu des fois nga gis si. man tilki may gis ñu rafet. li may gis ci championnat ay Galatasaray tilki yow euh, may sa wan ñu ay tilki. jigéen ñu xool non non c'est que problème bi dafa am ñaari ñaari xeet nag ñaari façon xeet la. ok dafa am xeet bu baax bi ak xeet bu bon bi. dafa am turki ak kurde. ah dafa am ay turc ak kurde. waaw. ok turc yi. ñoo yi non turc yi turc yi baax nañ baaxuñu ñoom boo seetloo sa baaxuñu sax laa mën a wax ñoom dañoo raciste. kurde yi dëgg la ñoom dañuy ñaawalaate dañ lay tooñ mais ñoom ñoo lay bëgg. kurde yi waaw kurde yi. maanaam kon tey boo fay takk jabar laa dama takk kurde. kurde yi waaw am nañ presque boo seetloo ñu fa marié ak ak turc ñi vrai bariwul de Sénégal yi fay marié ñu ci ñu ci ëpp kurde yi la ñuy marié ah.

comme tubaab ni mu libre marié. waaw man nga moom a jaaxal ñoom bari dafa rasis ñoom dañoo rasis ñoom ñoom ñoom ci côté kii seen góor ñi dañoo fiir ñoom. ah waaw ñoom turki seen góor ñi dañoo fiir. ñoom xaa seen goor ñi dañoo takk suñu jigéen ñi. est ce que bari amon amoon na mais des fois man yi ma gis am na ñoo xam ne ñi saytu ñu ñi ñi gis sey góor ñi daal moom par rapport ak bu dee góor sénégalais yi ñoo takk le sëy boobu di gën a yàgg góor sénégalais kat bu takkee sëy bi na yàgg ndax kayit lay wër kooku moom ah, moom amay <laughs> ah, fe <laughs> dëgg la moom moom Lamine kooku moom góor sénégalais moom bu takkee moom sëy bi na yàgg ndax kayit lay wër waaw moo tax nag te boo fa demee euh, dañuy gis yeneen dëkk yi lu ci mel ni comme par exemple ay Europe yenn pays wala fii sax ay Afrique du Sud ak yooyu mm-hmm. euh, boo takkee jabar il faut ngeen def benn temps ay cinq ans Euh, pour mëna am kayit ak yoy est-ce que turki non lañ mel. non Turquie meluñu non du gaaw nak après dañuy top yoon bi. procédure bi rek ñu xol ba xam ba xam ba am kayit yi après sa doom yi buñ fa juddoo buñ fa juddoo am ay buñ fa juddoo bu dé da nga tak mom <laughs> don to xalé mom bu juddoo day am papier. am problème parce que yaayam ci dëkk bi la dëkk. ok waaw té am na nationalité dëkk bi. motax bu mu juddoo tamit da nga am. ok mais ñun Sénégal yi nga xam ñun ñoy sey suñu biir bu fa sa doom juddoo do am papier. Hmm? mais tay motax ñi fa am doom da ngay gis ku ciy ñëw senegal indaale sa doom booy ñibbi si ba fa xale bi yow nga ñëw yow kase pour continuer sa liggéey nekk ak sa jëkkër. ok waaw donc mu mel ni loolu. waaw xoolal tukki ba tukki bi dama rafet na moom. kii moom tànk waaw waaw ah? waaw waaw kii de moom tànk la gisoo waa ji jëkkër ji. mu ngi reer moo tax na <laughs> daanul xeet bu baax bi sax. ah mooy kurdi non non bii Turquie ah Turquie bu bi ok donc ñom ñom ñom ñoy ñoo vraiment dañu ki ñom dañuy rafet ba paré ndjol sama technicien bi muy xolé femme bi. Ah, ak xel xalé bu xess ko bu baax bi mom dañuy nango rafet. ok dañuy nango rafet ah, mais en général beneen xeet moom en général dañuy gàtt. dañuy gàtt ok donc mu nekk loo xam ne donc kon mariage mixte nekk na loo xam ne sénégalais yi nga xam ne dañ fi jógee bëgg dem foofu noonu pour am waaye c'est vrai que dina garaaw pour nga mën a gis yow ñi sénégalais sax mën a gisee turc nax ko ba doxaan ko ba takk ko loolu tamit doy na waar. bari bariwul de. parce que ñoom dañoo raciste bariwul de c'est très rare sénégalais bu marié ak ñi turc vrai bariwul ñoom daa beneen xeet bi waaw mais teewul même même xeet bu baax bi ak benn ñaari xeet yi teewul koo ci marié da ngay am di nga am di nga am kii ah, waaw ah, parce que ñoom ñëpp ay xam naa xanaa foog nga nekk ay footballeur wala nga nekk ay. ah footballeur yi aussi. dañ waaw footballeur yi dañ ciy takk de waaw. kon sama zaal bi ñu fa demoon duñu takk dara. ah bañ a. lu ñuy am sans départ rek yow kay boo fa gisantee koo bëgganteel mu bëgg la amul problème say morom rek a fa nekk di takk di. Hmm. yow kay l'essentiel mooy amal mille chance ndaw si bëgg la rek. Hmm. waaw loolu moom. waaw bu la bëggee moom. mais yombul de. ah. seen <laughs> dund yombul de. ñan tënk da ngay partagé. mais lu ne mais <laughs> lu ne tubaab bi de. <laughs> partagé mooy la. tubaab bi sax des fois di nga maanaam yow ñoom boo joxee deux ñoom dañuy joxe deux. un waaw. moom turki bi avantage bi maam mooy papier bi rek. papier bi lay lay doon. mais yàlla baax na de façon et puis boo amee papier turc. Euh, di nga mën a am ay liggéey yu baax. ak ah. yenn kii yi ah. quoi. Ah. donc loolu aussi dafa nekk loo xam ne lu am solo la euh, une dem ba tegal dix minutes euh, ñuy waxtaan un peu par rapport ak ñi nga xam ne moom mooy réussite yi fa am. Mhm. sénégalais bu fa dem bu weesoo takk pour am pour am ay ay kii mhm. ban liggéey. lañ mën a def boo xam ne wax dëgg yàlla boo ko defee alaakulli yàlla moom réussir na parce que am na fa ay sénégalais yu réussir quand mhm. ci yan domaine nañ réussir. gis nga Europe pour nga nek fa nga liggéey en fait nga ni liggéey bi dama ci réussite mënul feeñ mënul feeñ bu dee bokkoo nag ci ambassade bi wala liggéeyoo ci bureau bi wala nga yor fa nga nekk euh, société fii nga associé ak waa turki nga fay ñëw pour liggéey la mais ñun ñi nga xam dañ fa dem pour immigrer wala ñi faatu faatu mënoo xam ku yor ku yorul parce que ñun ñëpp ñoo bokk li ñuy liggéey ku jaayul yaa ngi ci boutique bi ku nekkul ci boutique bi yaa ngi ci ambulant ku nekkul ci ambulant bi yaa ngi ci cargo yi ba marché luuma yi wala ci business yére yi envoyé Europe ak mayo yi jeex na dafa waaw ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ñu fa jiitu nekk suñuy kilifa ñooñu moom bu ma yeboon ne yàlla na leen yàlla lafal cat macha allah ñoom boo leen xoolee seen situation di nga xam ne ñii baax na hmm. waaw ok mais ku gëm sa bopp rek te liggéey tax laa jóg. di nga waaw di nga di nga di di nga réussir. di nga réussir waaw euh, mu mel ni kon réussit euh, ci ci fi nga xam ne kii li ñuy faral di wax ne ñàkk jëriñu lay doon. mu nekk loo xam ne lu lu am solo la. Euh, émission bi daanaka li ci des taxu koo bëri noonu xanaa ci xaaj bu mujj bi li ñuy wax rek mooy jëm ci li nga xam ne moom mooy sénégale bi gannaaw bi mu intégré ak yëpp. Mhm. lan mooy nekk xalaatam ñib kon ne fa toog wala lan la mun a jëlee foofu noonu Turquie indil ko Sénégal parce que tamit li Youssou Ndour di wax ne euh, tukki waaw lu mu yàgg-yàgg euh, ñibbisi vraiment moom moo ko mm-hmm. moom moo lay gënal donc lan la Sénégalais mun a dem foofu jëlee ko Turquie pour indil ñu ko li Sénégalais mun a jëlee foofu Sénégalais yi léegi gis naa léegi dañoo associé ak turki mm-hmm. da ngay gis turki bu ñëw ubbi fii société wala ubbi fii euh, magasin bu mag léegi sénégalais bi day daal di ñibbisi mook turki bi ñooy associé teewul day gérer. turki bay dem indi bagage yi wala moom bu ko neexee mu dellu. est-ce que nga. am na turki yoo xam ne léegi dañuy commencé di ñëw di xool Sénégal bu léegi bu ñu xoolee ñoom dinañ xam lan lañ fa war a mën a liggéey. léegi dañuy daal dellu seen dëkk waxtaan ak sénégalais bi ñu xool ñu daal di ñibbisi. ñi nga xam ne nag ndeysaan dañ fay yàgg. mësuñu ñëw Sénégal. ba yàlla def suñ borom may leen kayit bu ñu ñibbisee dañuy xool la lañu war a mën a liggéey. Mhm. waaw parce que boo xasee ba ñibbi si Sénégal yow boo bu dee liggéey liggéeykat nga boo xoolee rek di nga ne ah fii kat war naa fay mën a samp dara parce que léegi boo seetlee boutique yi sax dafa bari. waa boutique yi dafa bari. te ñoom foofu macha allah seen dëkk yi am na ay vaisselle. ok conteneur vaisselle yi. Euh, ak meuble yeeg yooyu noonu. léegi sénégalais yi bari léegi sax loolu la ñuy conteneur fii. dañuy ko ak couche couche yooyu yëpp léegi waaw dañ koy conteneur di ko indi. Mhm. waaw mu mel ni am na benn internet koo xam ne moom ci kii bi la bokk. Mhm. Euh, mi ngi laaj ne na euh, li nga xam ne yow réussir woo ko fa. Mhm. foofu noonu nga xam ne mooy Turquie euh, tey jii bu doon da nga ko war a defaat. nan nga nan ban taxawaay nga si am maanaam sénégalais bi nga xam ne comme dem na fa waroon réussir ci benn affaire mu am ci échec ban taxawaay ban conseil nga koy jox pour mun gën si amaat beneen taxawaay. bi nga xam ne dafa dem am mu ñibbisi wala mu dess fa batay mu mu mu fa batay mu dess fa batay mhm. pour man bu doon da nga japp ci ben liggéey. Mhm. liggéey bobu gis nga ni yow lii réussir ci. Mhm. da ngay seetaat benen liggéey. nga ba nga def parce que man ci boutique yi gis na boutique yi da dé pour mat sama yaay sax problème la. ah nak la. parce que da daan metti da ngay commencer liggéey ba min ñu né la arrêter légui na dé fa nga tok ben weer bo xam day tar bu fekkee yow soutien de famille nga amna ñu tok di la xaar. muy seen famille surtout sa yaay ji nga xam ne moom nga am munoo ko yónnee da ngay obligé xool man avant ba may dem metti woon na lool ci man début bi nag neexoon na mais à la dafa metti parce que tey nga liggéey suba doo liggéey mais may dem boobu yaa ngi woon ci ci ci ci bilaay metti woon na dama daan toog sax di jooy yow mi barki Serigne Touba ah dama toog sax di jooy ba sama copine yi naan ma noo dina baax affaire yooyu mais ma gëm li ma gëm rek te xam ne dina ñëw yàlla di def di def di def ma dem ci la sama benn xarit ndeysaan màgget daal ne ma mimi doo dugg ci marché yi ma ne ko yee eh, màgget man mii nu ma marché yi te nga maa bàyyi ma war mu ne ma yow baal boutique yi man mi ni nga may gisee ni li ma or yi may takka li ma am yëpp ci marché laa ko amee ah, ma ne ko ah bi ma ne ko amul problème man tam ma daal di commencé rek fexe ba am benn fond jënd samay lu samay canta mooy valise yooyu noonu nga gis uh-huh. yu mag nag yooyu ndaw la bu dee France gulu gulu lañ leen la tudd fii uh-huh. ma defar samay canta yu mag kii nii bokk na ci ki ma dimbali. waa jii nii waa jii nii. barki Serigne Touba moom mi bokk na ci ñi ci ñi ma dimbali di ma encouragé nag. ndeysaan moom daa mel bu liggéey ay non moom moom moom moom non moom moom ci boutique yi yi jaay montre moom ci la nekkoon moom ab naar ak a jëloon maanaam moom moo yoroon lépp naar bi. mu nekkoon sama waay di ma conseiller bokkoon ne ci ñi may jàpp di ma encouragé ma ne ko man de damaa bëgg a dugg ci lii mu ne ma doo ko rëcc dugg ci ndax say morom rek a ci nekk. waa mais mu nekk liggéey boo xam ne nekkul liggéey jigéen parce que ñëpp xam nañ ne valise montre nga duy fii montre ah, duy dafa diis mais ma dama ci daan teg la ñett yow mi takk ko jël beneen kees boo xam ne réserve yëpp ci lay nekk ma diri mais ba ma demee ba ñam marché bi réussir ma ci boutique bi réussir ma ci ambulant mais damaa réussir ci ci luuma ji ma commencé ci nag gis sama bopp muy commencé waaw muy neex xam nga nag dañ ne tukki bu nekk tey balaa ñuy balaa ñu dinañ ñëw ci xaaj bu mujj mujj bi sax nga wax ñi li tax nga nga préféré yi ñib si ak yooyu mhm. euh, am na fa jaar-jaar xam nga nit ku nekk moom euh, euh, ñam nga fa kaani yu saf-saf lan nga ñu mën a may ci loo xam ne euh, da nga ko fa ñam daal loo xam ne wax dëgg yàlla moom <laughs> li ñuy wax ne buggoo sa noon di ko yëg waaw ñam nga daal non ñam naa fa te loolu <laughs> en fait mën naa ne ci di mu ngi tombé woon période lan tabaski tabaski la woon comme man maa tàmm di jëndal sama yaay xar chaque année tabaski boobu jot mën naa ne weer yooyu liggéeyu ma te man maa war a yónnee sama yaay xaalis xaalisu tabaski xaalisu luyaas beeg yooyu noonu yëpp maa ko war a def yow mi yàlla noo boobu laay jooy ba sama xarit bi da daan toog di ma jooyle parce que boo tabaski baa ngi ñëw te yoraguma lu ma jëndalee sama yaay xar may jooy loolu ma ne man sama yaay maa ngi koy jënd xar chaque année ren mu bañ a tabaski noonu loolu sama gàcc la mais di yàlla du tëj buntu tëj palanteer wàccari lu ma ko wax may dox di dox di dox sama copine ba heure bu ñëwee fekk ma ca kër ga may jooy mun ma waa jànk lan la ma expliqué ko mun ma jànk bul jooy dina baax nii la tukki moo mel noonu patati patata mais ci laay woo sama yaay bugguma sama yaay xam li xew sama yaay ne ma moo ah man comprendre naa la su ma tabaskiwul amul problème parce que mais boobu moom mi ngi wax loolu mais man dama ne man fu ma jaar sama yaay dina am xar mm-hmm. ala kuli aali moo xam nag mm-hmm. ma daal di dem ba yàlla daj nag sama benn nijaay boo xam day jaay xar mana daan ne ko bi doo dem ci diw nga woo pas moko ma ngi tok di la wala nga bippe ma sama yaay ne ma waa amul problème ma ngi fay dem ba jàmm ma ko boo demee rek paas ma ma daal dem mhm. mu paas ma sama nijaay boobu ma ne ko nijaay dama bëgg nga lebal ma ben xar xar mu ne ma ah am naa fi xar bu baax de photo ne ma ma ne ko bii ñaata mu ne bii ay soixante quinze yooyu quatre ma ne ko ah nijaay ma def ne maa bëggoon nga lebal ma xar bi yoraguma nak mhm. mais bu passé rek inshallah dina la fay fitra fitama ca kat yoruma ma ko fenn sama nijaay ne ma am problème ma daane sama yaay jël xar mi yóbbu sama yaay ne ma lii nag man a ko demal rek xam nga ndeysaan mu nekk fa di ma ñaan xam nga dafa nekk sama xarit mm. yàllaa def lool mm. bi ma ñëwee xar mi ñu tabaski teguñu ci sa bis bu dellu sama nijaay commencé maa karkare di la woo di ma woo beneen stress boobu tamit nekk sama bopp <laughs> teg la teg ma pression waaye li yàlla di def rek ma am fa benn càmmiñ bu baax ndeysaan foofu Turquie sama càmmiñ yoon moom mi la la taay na nga triste de ma ne ko man kat fi ne maa stressé mu ne ma ko dafa am koo xam dafa maa lebal xar te maa ngi nii awma lu ma ko fay mu ne ma ñaata la ma wax ko mu ne ma nañ dem yor naa nangam euro ma jox la nga fay ko yow léegi yow après ma mu des man ak yow comme ñoo bokk dëkk bi noonu ba ni ma yàlla def mu commencé liggéey ma fay waañ nga fay waaw loolu moom bokk na ci li ma marqué ci li la marqué ci euh, nga jékki-jékki si waaw ah, mu jékki-jékki ñibbisi ñibbisi moom yombul de. <laughs> non yombul moom lan moo la qu'est-ce qui s'est passé nga ba nga ne xaaral ma ñibbi non dama ni dama ni xaaral ma ñibbisi def sama business business bi mooy comme am naa ñu fa nekk ma leen di envoyé xaalis ñu may jëndal bagage di ma ko yónnee waa waaw en même temps nag comme yàlla def na ñëpp xam ne nañu Mimi dafa affaire comédie daf ma neex dama bëgg yëfu dof fu ma toog kenn du ñepp euh, ñu ne ma pour pourquoi pas mënoo def affaire animatrice yow mi waaw yow mi waaw hmm. yàlla def ma sob ku ci mel ni euh, ndeysaan sama sama mag ji Omaro mhm. daal di ñëw ne ma man de damaa bëgg a ubbi benn genre comme site yooyu rek mhm. ma di am fit ba ne ko jox ma micro bi ma dugg ci tali bi mu ne ma mimi ma ne ko jox ma yow mi mais yàlla def jour boobu ma dugg commencé dugg <laughs> Sandaga dawal après ñoom ñu may laaj na damaa mës a def télé man li musuma ko def jànguma école aw may diplôme yàlla nag day maye waaw noonu non la duggé ci animatrice nek fa nek fa ba sama xarit bi Assa job ndaysan bax bay bëgg dé assu Astou Dia koy nuyu mom, kuma xam sax jamono ji sax xam maa ngi moom après moo ma li nga nek fa pourquoi pas mëno ñëw ñu nek DTV ñu liggéey ah fa la nek ni nak di ma sa intégration ce qui bi nga ñibsee ce retour non sama retour mom, lu ne metti won na lu ne ngay dégg lu ne ngay dégg mënatul delloog ok mom, mom lan moko téré délok dañ ko di lu ne ngay dégg te loolu yëpp amul mais teewul yàlla dafa dogal ne nit du la ci gis mu ko bañee la baa mu yërëm la mhm. waaw ndax tànk moom yaa ngi am sa ñaanu waajur rek nit waaw yàlla mën na lépp mën na dimbale waaw mën na dimbale mu mel ni rek euh, waxtu wi ñu jagleeloon donc ñu ngi yegg ci njeextal bi euh, ginnaaw bi nga defee tour dem Turquie mhm. ñam fa neex ñam fa naqari mhm. ñëwaat senegal lan ngay conseiller ki nga xam ne mi ngi lay déglu nii tembe te xelam nekk ci dem loo koy conseiller mu dem bu mu dem fu mu war a teg tànkam fu mu war a teg tànkam lan la war a def ki nga xam ne aussi li nga danger am na fa lan ngay conseil gars yi ak commerçant ñi nga xam ne daal bëgg nañu lan nga leen di conseil ci sa expérience. non ñi nga xam ni bëgg nañ dem ndax di nga gis ku yor benn 3 millions benn 4 millions def ko ci tukki ne day tukki man kooku dama koy digal 3 millions yooyu noonu mu def ci business. fii nii wala foofu waaw Sénégal fii. Ah, fii mu toog fii mën nga toog fii am sa benn mbokk bu nekk euh, Turquie. léegi gis nañ ñëpp réseaux sociaux yi jaay ci dafa dox. waaw voilà vente en ligne yi dafa dox. mën nga toog foofu tey sa benn càmmiñ wala sa benn jigéen moo xam ku mënti doon mu yónnee la foto yi nga dugal say client bëgg nga nga def commande dajale xaalis yónnee ko ñooñu bu ñëwee nga livré leen. ki nga xam ne nag moom visa da koy am sans mu fere ci dara da yàlla da koy may te te te te dara du ko ci fekk. bu dee sentirul boppam fii ni Sénégal bu mënee dem foofu pour liggéey na dem. waaw baax na parce que wax dëgg yàlla man dama contre ñu naan Europe ak ak fu waay mën na ne amul dara an ah, yi am na. bu dee liggéey rek moo la tax a jóg boo demee di nga am waaw. <laughs> donc loolu mu nekk conseil boo xam ne moom ngay moom ngay jox euh, mu mel ni may sa ñi ngi yegg ci njeextal bi euh, di bàyyi soxna si rek. peut-être mu mu wax kàddu mu mujj tàggoo gërëm ñu muy gërëm voilà parce que comme li ñuy wax rek sànq mi ngi koy wax ne am na ñu bëri ñoo xam ne euh, dimbale nañ ko foo et mm-hmm. donc euh, lan mooy nekk sa kàddu mu mujj ci émission tey bi waaw ah, sama kàddu bu mujj mooy euh, damay dama lay remercier yow mi nga xam ne yaa mi invité fii nii mm-hmm. ci King FM ma kontaan ci lool di sama remercier nag ku ma koy njëkkee moom Aminta la mm-hmm. ndax mën naa ni moom bu ma demee ba dugg Turquie moom moom moom la lépp ci loxoom la jaar sama xarit boobu ndax affaire yi dem gi daf maa bett damaa jékki-jékki saay toog rek mu woo ma. Mhm. fis fekk daf ma yenn ma ne aminta mu woo ma te aminta ba ñu ko ciy diggante lii du jàmm sama yaay naan ma aminta lay woo wuyul jour boobu ndeysaan maa ngi demoon répétition. Mhm. ma woo ko fexe ba jot ko mu ne ma fis an sa papier lii man ko mi ngeen man am nga passeport bu jot ma ne ko lépp a ngeeg man mu ne ma suba dama joxe ko tey bu ma duggee turki grâce à moom wax dëgg yàlla moo ma jàppale ba ma ñëwee tamit moo ma dalal te mënoon na ni Sénégal lañ dëkk ñoo doon ànd mënoon na dem fàtte ma may def ko. moom maa ngi koy remercier di remercier sama gars yi nekk foofu ñoom Mor. Ousmane Ndiaye tamit bokk na ci ki ma jàppale moom dafa jógee France ñëw ndeysaan gën maa jàppale. daf ma daan gis moom daf ma daan naan Mimi dama lay encourager. jigéen nga bu la neexoon nekk si naka su dul noonu. mais daf may encourager tout le temps ba ni ma ñibbisee Sénégal nekk ci animatrice bi moom tamit daf may jàppale. maa ngi koy nuyu namm naa ko lool Ousmane Ndiaye mmh. euh, dafa ñibbi nag. ndax fa bu fa nekkoon sax ñooy ànd ñu ñaar ok waaw mais maa ngi nuyu ñëpp kontaan naa ci émission am incha allah xam naa di leen dox rek dig daje dig daje rek boole mën a maatee rek ma ñëwaat ñëwaat incha allah du yàgg dara sax di nga ñëwaat parce que dafa mel ni Lamine dina bugg nga ñëwaat ak ak ak ak Maïssa ah en tout di di kontaan bu baax vraiment di lay remercier ci mm. ñëw bi nga xam ne ñëw nga wuy euh, si ñu ko wax deug yalla et puis émission bi liñ ci doon xaar tamit euh, euh amnañ yaakaar né jox nga ñu ko donc sénégalais bi fi tok tay amna idée bu lèr buy dem Turquie bu démé xamna fi mu war a teg mhm. lan la fa def ak lu mu fa def ak yu démé nonu vraiment di remercier également ce ce xarit bi nga xamné ne waaw asu donc ki nga àndal voilà donc di bàyyi xel ci mom donc euh, mu nekkoon seen émission Allo Diaspora donc nii lay demee àjjuma bu jot donc dañuy waxtaan ci ci benn dëkk rek. Mhm. jël waxtaan sii donc euh, xool dëkk boobu noonu euh, war nañ fa def war ñu faa dem war nañ fa def war ñu fa def euh, ñi nga xam ne aussi ñu ngi ñuy déglu bugg ci WhatsApp bi. Mhm. ñoom aussi wax ñu seen xalaat wala bugg ñu ak yooyu ñoom mën nañ dugg ci WhatsApp bu Allo Diaspora muy 76 527 32 32 76. 527 32 32 mom moy numéro bu whatsapp bu allo diaspora donc ko xamné bëgg nga si dugg wala ko xamné am nga lo bëgg wax wala lo bëgg woné wane wala lo xamné dal euh, jafé jafé la ci yow en tout cas ci diaspora bi nga bëgg ñu waxtaan ci wala ñu invité wala ñu la sax fa nga nekk ah, un peu partout dans le monde fo mun di nekk euh, ñu woo la waxtaan seeg yow aussi euh, mën nga dugg ci numéro whatsapp bobu ci whatsapp boobu di 76 527 32 32 C'est normal, do leen defal seen émission won ak. Euh, Lamine Ndiaye ci wàllu xarala wi may sa sama jantal booy ah nekkoon ci wàllu digital bi wan na soxna si ay këram wan na ko may sa daal nag da nga xarañ quoi <laughs> vraiment ah moom xarañ weesu liu wala fi nga dëkk <laughs> wala ñi lay dimbale ah. donc voilà mi ngi noonu kon may moo nekkoon ci